ah sama gars yi waaw ñu ngi kontaanaat di leen bége waaw di leen wax ni waaw gis ngeen de dama naa ASC Kër sax laay wax ma ni waa Kër Pathé Kane waa ASC Kër Pathé ñoo ñëwaat fii si biir terrain bi tey waa ASC Kër Pathé Kane fas yéene koo set setal ba mu set di waajal max suba yi ak yeneen maks nag waaw di wax ni dañoo bëgg képp ku ñëw si terrain bi rek nga xam ni waaw da koy jar quoi gaa yaa ngi nii bi nag tey ñëw nañ fi pour set setal ko waaw gis ngeen nii daal lay demee gaa yaa ngi nii waaw Cheikh Samba gi nii si set setal bi waaw kon yéen waa ASC bi ngeen xam ni booy daal ñu ngi defar terrain bi waaw gis nga sama waa ji ñëw fekk gaa yi di liggéey moom it mu ñëw jàpp si liggéey bu baax macha allah waaw gaa yaa ngi nii de waaw gis nga nekk si waaw góor a jóoba ngi nii supporter bu mag bi ànd ak Fallou Thion doomu ndayam waaw Abdou Fall nee na ma waaw aha gaay yi dégg leen loolu ndeysaan gaay yi jël leen waaw kon na xam ne max bi tàmbali na de wala ah déggal loolu ndeysaan loolu neex na waaw góoraa ngi noonu waaw waxal de gaay yaa ngi nii waaw gis ngeen terrain bi fii boo xoolee ba fa sa bët yam doo gis mbuus waaw doo gis xeer bu lay gaañ doo gis këyit doo gis dara kon mbir maa ngi nii yéen waa ASC bi ngeen gën a jàppaat gaay yi gën leen a ñaanal waaw ñuy pare waaw gis ngeen gis ngeen kalso yu mag yaa ngi nii waaw booy naka bu kalso yaa ngi nii de waaw gis nga waaw silib xam nga silib waaw waaw ma xam loolu xam naa loolu bëgg a gis awra <laughs>